dama euh, liir léegi si benn site internet benn gaa Birima Ndiaye bu TFM def benn sortie par rapport ak euh, le président Moustapha Cissé Lo daal def ay révélation yu bari yoo xamante ni dara du ci dëgg ay nar rek moo ko moo ko ëmb ma bëggoon a leeral foofu tuuti si li mu wax si vidéo bi mu def benn sortie di xam ne Birima Ndiaye du nit koo xamante ni exemple la fii Sénégal wala koo xamante ni Moustapha Cissé Lo nawleem la wala moromam la wala màppandoom la benn nit la boo xamante ni da koy recruter boo amee dossier wala boo amee ay problème ak justice wala boo amee problème ak sa liggéeyukaay nga recruter ko fay ko mu toog TFM pour défendre la wala pour jël aw dëgg def ko fen jël fen def ko dëgg kooku mooy Birima Ndiaye tey bu toogee dama ko dégg mu def benn menace parce que bi ñuy waajal campagne électorale bi ma ko dégg mu def benn menace di menacer responsable yi Dakar yi ne dem naa si Macky Sall nee na ku toppul si ginnaaw Amadou Ba on va voir nangam ak nangam qui est Birima Ndiaye kan mooy Birima Ndiaye Birima mooy kan ba war a ñëw di menacer nit ñi. di dox si kaw nit ñi di wax lu ko neex jëf lu ko neex n'importe lu ko neex wax woo naa Macky Sall nee ma nàngam may alerte ak di lancer appel président Macky Sall ne ko na ko arrêté ndax euh, Birima saaga na ku ne mu jàll mais Moustapha Cissé loolu lay mujj a saaga dégg naa mu ne xaritam la mais kon euh, dinaa ko yekk musiba Birima bu yekkee musiba Moustapha Cissé Lo Birima yaa ngi may gis ma lay gis boo yekkee musiba Moustapha Cissé Lo danaa la toroxal man Pablo soo ko defee dootoo ko def dama bëgg nga régler te yaru te xam ne réewande amul njëriñ yow yaay kan Moustapha Cissé bi muy jël loxoom di ko def si laax bi foo nekkoon bi muy jël laax bi di si def loxoom di yenu makki sàll di ko yóbbu fu ne si biir réew mi ak bitim réew foo nekkoon ñu la recruter tey di la fay xaalis di la waxloo nga naan ay Touba biñ galamee yoon wi ne makki sàll di fa dugg Cissé Lo moo xuus jàll yóbbu ko si sëñ Saliou yóbbu ko si sëñ alaaj baara vidéo yooyu soo laa ñooy témoins yi tey la neex yow nga ñëw ne da ngay défendre Macky Sall ma bëgg wax foofu benn affaire tey Sénégal bu nekkoon si pays boo xamante ni pays bu normal la Birima dafa war a dem kaso ndax ku amul métier amoo xëy amoo wàcc yor Mercedes boo xamante ni 65 millions Birima na ma yóbbu si yoon ma wax fi muy jëlee xaalis Birima sàcc la man Pablo maa ko wax na ma yóbbu si yoon si caméra laay wax Birima sàcc la. dañ ko war a yóbbu si yoon tëj ko kaso su àndul woon ak parti pouvoir dañ koy yóbbu kaso yow xëyoo góntoo amoo métier amoo boutique amoo oto amoo tool di dawal ay oto yu 65 millions foo ko teg toog TFM di saaga nit ñi mais di nga xam ne Moustapha Cissé Lo du Bougane Gueye Dany Cissé Lo du Bougane Gueye Dany du ko defanteeg yow ñun en tant que jeune noonu say moroom ñoo koy defanteeg yow parce que du sa moroom du sa màppandoo du sa nawle dégg naa la ngay xataraayu naan Macky Sall dina ko recadrer dina wax ak moom ñun ñi ngi xaar loolu Macky Sall moo koy def mais du yow yaa ko war a def Macky sàll mi ngay wër nag naan woo na ma téléphone yow da ngay toog café dorom sax naan ay yóbbu naa diw si Macky Sall mu jox ko nangam discrétion zéro yow kilifa yow kilifa yi nañ la moytu parce que sa genre gi ñoo daaneel le président Abdoulaye Wade sa genre gi ñoo daaneel Abdou Diouf ñooy daaneel Macky Sall ndax woy monsieur woy madam du ngeen wax dëgg kuy wax dëgg ngeen ñëw wër ministère yi pour ñu fay la Moustapha Cissé Lo nag dafay déranger moo tax ñu mel ne Birima dinañ leen recruter di leen fay xaalis pour ñu koy song parce que ñi muy déranger ñuy ay sàcc di ay ministre di ay directeur làqatu sa ginnaaw di la fay xaalis pour ngay toog TFM di ko saaga wala ngay jël ay émission di ko saaga loolu day dakk man maa wax ne Birima yow sàcc nga bu doon Sénégal dañuy jàpp ay Khalifa Sall si ay caisse d'avance wala ay kër yi am dañ laa war a woo foo war a mën a jëlee oto buy jar soixante cinq millions di jënd ay kër cent vingt millions dem si ginnaaw président di fen di tappale yóbbu ma si yoon suba ma wax fi nga jëlee xaalis sàcc pire mooy yow mais Moustapha Cissé Lo du sa morom du sa nawle du sa màppando ay doomam en tant que jeune li mu def Cissé Lo li mu def si Sénégal li mu defal Sénégal sa baay defu ko sa bàyyi bàyyi defu ko maa lay dégg nga naan sëti sëñ Touba yi muy saaga loolu sawar naa pour tontu si bi ko sëñ Saliou di gërëm naan ko Serigne Touba nangu na sa liggéey ñi ko fekkee woon deewaguñ ñu fi ñoom sëñ Matar Jaxate ñi ngi Touba bi ko sëñ Abdoulaye di gërëm ñi ko fekkee woon ñi ngi Touba deewaguñu bi ko sëñ Moustapha Bassirou sëriñam di gërëm ko fekkee woon ñi ngi Touba yow sa bàyyi amul ngërëmal sëñ Touba te du ko am ba ba muy dee moo tax di nga dund ba dee askan wi nga bokk kenn du si mel ne Moustapha Cissé Lo dégg naa la mel nga ne bu waxee dinaa ko attaqué boo ko attaqué ma toroxal la soo ko waxee loo ko war a wax ma bàcc la ay doomam comme yow ñoo lay duma yow rew nga te fuy te xamoo sa bopp dama bëgg nga arrêté menaces yi ngay def boo toogee TFM di acharné wu si kaw nit ñi saaga ku ne yuuxu fëgg taabal yi dama bëgg nga arrêté ñun dañu xeex pour Macky Sall ñëw si pouvoir kon duñ ko yàqal bi ko Sénégal gépp di daw ñun noo taxaw si kanamam bi ko Touba gépp di daw Cissé noo taxaw si kanamam bi Ablaye Wade taxawee yor police yor gendarmerie Macky Sall taxaw na day dugg Diourbel Macky Ablaye Wade baare ko président de la république mi ngi may dégg moo woo téléphone Moustapha Cissé Lo boobu mi ngi jëm Touba ne ko dëppal Ablaye Wade kar nañu booba yow foo booba foo ñun bi ñuy xeex pour indi Macky Sall si régime bi foo ne tey la neex ñu recruter la nga taxaw naan woy monsieur woy madame di xataraay mais damay laaj birima moom mooy porte parole u Macky Sall wala moom mooy porte parole du gouvernement wala moom mooy porte parole u APR ba bëgg a wax si turu APR loolu laay laaj sénégalais yi kan mooy birima ba war a taxaw wu si kaw nit ñi di saaga nit ñi di wax lu ko neex maa ngi lay wax di la di la wax di lancer appel le président de la république bu dee mën na laa arrêté mu arrêté la ndax lii fi jëm du doon lu baax ndax duñ la bàyyi ngay saaga sunu kilifa duñ la bàyyi nga koy menacé. waaw si loolu leer nañu Moustapha Cissé loolu dafay déranger si biir même partie bi mu bokk muy APR ndax ku si mel ne moom si fit si jom si ngor ak si dimbali le président de la république amul ah, si alerté ko ne ko ñii dañ lay nax ñii dañ lay nax. loolu bëgguñu ku koy wax genre birima gi ñooñu muy défendre Touba dégg nga ay scandale yu ñu def jël xaalis jox ko ñun li ñuy wax si télé la ñuy wax dañu jël xaalis jox ko pour saagaloog ko parce que li Moustapha Cissé Lo wax dafa am ñu muy déranger am na ñoo xamante ni ñi ngi biir APR di ay kilifa mën maa ko wax di ay ministre di ay directeur ay sàcc lañ si télé bi nag la ñuy dem fay birima pour mu taxaw di leen défendre ay sàcc directeur ay sàcc ministre ñoo nekk si gouvernement Macky Sall di fay Birima pour muy saaga Moustapha Cissé Lo parce que arrangé wu leen mais mënuñoo tee te Birima nee na bu Cissé Lo waxee dana waxaat suba dina génn wax mënuñoo tee muy alerte Macky Sall ne ko ñii dañ lay nax ndax bi Macky Sall wéetee moom la gisoon bi Macky Sall wéetee Cissé Lo la gisoon ñii taxaw tey di ko xoqatal mais ñii ñun lii dàquñu ah mënuñoo tey Moustapha Cissé Lo di wax Moustapha Cissé Lo toujours cohérent si position par rapport ak ku mu àndal si dëgg lay àndee yow. bu leen fàtte bi muy wan ginnaaw Ablaye Wade amul woon intérêt si Macky Sall mais dafa bàyyi lépp pour xeex dëgg kon tey mënuñoo taxaw di ko menacer ay waxal léeg fii nga yem day wax li mu gëm day wax li mu xalaat